Yeah. أمانا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض moo tax suñu borom dafa ne bu waa dëkk bi gëmoon yàlla te ragal ko yàlla nee na xéewal ñu dal rek di wut yëpp dinaa ko yomaat bu ñëw seen yoon kon ñu ngi fuglante yàlla mooy lépp loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala tere na ko ñu bàyyi ko moo tax yàlla la dina amul taqullaa wal tanzur nafsun ma qaddamat li xadin wa taqullaa inna laa

والقناعة بالقليل والاستعداد يوم المحيط ba nga xamee ne ragal laaj nañu ragal yàlla dañu ragal yàlla bu ko doon définir mooy mooy ragal yàlla ci tedd nga am ak xéewal yi nga xam ne moo ñu koy jox moom suñu borom ñu ragal ko yàlla ngir loolu wala amal bi tanzil li yàlla wàcc ñu jëfe ko mu noonu damaa ragal yàlla ba pare li la yàlla sant doo ko jëfe da ngay jëfe li la yàlla sant waaye wala القليل وذل النيو وسب من ragal yàlla jaamu ko te waajal bis booba mbokk yi bis booba lu jar a waajal suuf si bu ngasee ba suul la bu féete la kaw féete la suuf ndeyjoor càmmoñ kanam ginnaaw ñëpp ñi ngi bàyyi la fa nga wéet fa yow dong muy taw ci sa kaw di naaj ci sa kaw di sedd ci sa kaw fi noonu sedd baa ngi ni di ñëw ku nekk ngi préparé sa mbàjj waaye waa armée yooyu ñoom lu ñuy sangoo lu ñuy sangoo buy taw ñoom lu ñuy seeloo kenn xamu ko seen jëf rek moo leen war a sàng seen jëf leen war a seel moo tax boo ko rafetul bu rafetul boo légee nga rëcc ko sa kanam borom te laa faw nanam baara ma fàttal awaat bu pré ba weesoo rëcc ko jëriñ dara kon bu ñuy topp nit bu ñuy topp nit bu ñuy topp nit nañu fàttali ko wax suñ borom ja ittabarra alladina tubiu min alladina tabaru ñi nga xam dañ leen toppoon ci caaxaan bis dina ñëw mu dañ te ña leen toppoon moo tax ña leen toppoon dañ naan bu ñu amoon benn delluwaat aduna kon na barra min kum kama tabarra'u binna dinañ dañ ci yéen ni ngeen daje ci waaye wees na mu mënatul am moo tax koo àndal te àndu leen ci yàlla àndu leen ci lu neex sëriñ bi bu ëllëgee yomal xiyam da ngeen di poñante rek koynanta hay ko ngeen di def te booba moom dana dañ ci yow nga bëgg boo delloo aduna dañaat ci moom tudd ko delloo moo tax sëñ tubaa ne jarre bi rijal qabla suxba wala tusal gumna aw da raxba ki ngay andal ngir yalla xoolal moy kan dooga àndal moom ku doon li ñuy wax rek ko sëriñ bi boo gisee ni andi li li bi wax am na yoo xam ne boo legi jamono ji so len waxe deug ki bëgg a dara danaan dundub taalibe dañ lay bëgg a ci taalibe léegi koo ci bëgg a wax dëgg te muy dóor katu màq dóor katu màq yi moom foo waxee dëgg bu jëlee kàddu gi dañ naan diw du taalibe yàlla moo de usax ñu ne ab usax rek la ab usax rek la ci taalibe ñi gëmuñu sëriñ bi yow xamoo ni ñuy gëmee sëriñ bi xamoo kan mooy sëriñ bi ba pare di xool bu ko gëmul bu ko gëmul xool koo cay dugal ak koo cay te yow xamoo sa bopp ndax bokk nga ba sëriñ bi ne sifaatu saadiqil murid bépp saam arbaatu nazamtu xaw faxtiraam mooy dama koy woy bañ nañ loolu bañ nga waru nag mooy defe ne càng te bokkoo ci yow nag wóorul ndax càng bokk de li ciy génn keneen ndax na ca bokk dëgg fit la te léegi nag boo bëggee wax dëgg rek ñun la diw gëmul sëriñ noonu lañ lay dégagé su ko a jariñu dañ lay mooy dox dañ naan nee nañ gëmul sëriñ parce que waa ji dóor kat màtt la te tey wax arrangé wu ko soo waxee màtt bi du mën a tal yi su ko defee mu ne diw gëmul sëriñ bi dagaasal kon yooyu nañ ko bàyyi xel ku ci toppati nit na nga ko topp ci sëriñ bi wax sëriñ bi seetal ñi ngay topp doog leen a topp sëriñ bi nee na topp borom it bëgg-bëgg sëriñ bi nee topp koo ci sa boppam la lay xëcc wa man ala xayri ila yaakaar njariñu nit bu ko topp ngir ragal lool nit bu ko topp bu ko bu ko bàyyi ngir yaakaar ngir ne dalay lor boo ko bàyyee wala nga topp ko ni damay jariñ déedéet ne la an nafsu wa durru min arrahmani laysa min albidaani uswa njariñ ak lor ci yàlla lay jóge jumul ci weer jumul ci ñuul fa cheikh la yuxaalifu lmusafa wa man naha amran mu rabbin tafa ki ngay topp du wuteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ngay topp du wuteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon xoolal sëriñ bi tey boo ci doon xool ñi jaar fi yonente bi jaar sëriñ su bees tàq sii su bees tàq si nga xamante ne sëriñ bi béykat yi moo njaay la ñu bees tàq te ñoo fekk mbooloo boo ñëw xumb ba dee xumb ba dee da nga gis koo xam day fanaanee fecc mais dama woo sabar nga fekk ku bëgg a bi woowal sabar gi fecc ba sonn kenn du la ko tere ku bëgg sabaru te namm sabar woowal woowal woowal sabarkat yi ñu fecc nga fecc ba sonn mais bul tudd sëriñ bi ci ay caaxaan. loolu dañ ko war a dépassé te ñun murid yi ñoo ko war a dindi nag ñoo ko war a dindi koo xam ne da ngay caaxaan ñoo xam ne bokkoo ci sëriñ bi ñëpp taxaw ni kii bokkoo sëriñ bi ay caaxaan yi boppam la yor kuy ànd moom na ànd ak moom ci caaxaan bi ne buñ ko boolee ndax sëriñ bi fawul fëluwul fawul fëluwul kon beneen bi da des dañ ne nit ñi ci àdduna ñaari kuréel lañu benn kuréel bi mooy dañoo yeewu ñu أنها ظل سائل ونعيم حائل بل فهموا أنها نعم في annaha النقم وعرفوا أن هذه الحياة إنما هي طريقا إلى الحياة الباقية فردوا منها باليسير وقنعوا فيها بالقليل فاستراحت أبدانهم وسلم لهم دينهم ويفكرون في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم nee na àdduna ñaari kuréel a fi ne kuréel bu am xel ak kuréel bu dese ñi am xel mooy ñi xam ne àdduna ker buñ tuxu la ker buñ tuxu la ñi xam ne àdduna xéewal la waaye xéewal la mu lëmbaale mbugal mu lëmbaale mbugal ci biir ndax boo toppee xéewal bu ko lëggee mu yóbbale mbugal ñu xam ne àdduna dund buy jeex la parce que boo xoolee sa seetu tey nga xool sa sikkim bi di sax te amoo woon sikkim fan yee jamono yee amoo woon sikkim nga xool kenn ki bi nga xool kanamam a ngi ras mbir yi bañ na tànk yi baaxatul xamal ni dee ñëw de dee ngi ñëw de amoo karaw gi daal ñu leen fukk léegi ngay commencé gis muy bijaaw di weex dee ne na kooku nag mooy ki nga xam ne day day muccal diineem day góorgóor ci diineem xalaat ci bis ba nga xam ne na alal du jariñ doom du jariñ lii jariñ mooy ci indil yàlla xol bu bu laab bu doon jàmm yàlla beneen bi nag beneen kuréel ga mooy dof ya nee na mooy ñu nga def ñaa nga xam ne seen dañ seen i bët dafa gumba lam yanzuru fi amrihim walam yaktashifu suu a xaaliha xool ñu seen i mbir waaye xool ñu ñaawut adduna waaye adduna daf leen a woon colam bu rafet ñu topp ko di den den waaye jittewoo rek nekk adduna adduna rek ci la ñuy xëy ci la ñuy gon su ko defee moo man nasullaha fa ñu mbokk yi fa waxtaan bi ñu ñaari point yu ndaw moom lañ ko tëjee benn bi mooy bu ñu jàpp ne islam diinul faq faqat waaye islam diinul wa daw la islam maanaam lépp la ëmb dundinu doomu aadama la islam ku jàpp ni politique ba amu ca kàddu da ngay nax sa bopp islam ku jàpp ne doxalin social bi amu ci kàddu da ngay nax sa bopp l'islam ci lépp la am kàddu lépp la l'islam di doxal politique bi fi doon ni jullit bi ni fi ko l'islam xool loolu la war a xool te politique la nekk jamono yi ñu ngi ci lan ñu ci tànn gi tànn nag la mbokk seede la tànn seede la seede la kenn du ko nëbb l'islam day tere ku nëbb seede tànn seede la kon bu nekk ki ngay seede war ngaa xool sa diggante ak sa yàlla booy seede ku bon daa am ku bon a bon a bon am ku bon a bon a bon a bon a bon am ku bon a bon a bon a bon ku bonaatoo am léegi nag kan ngay tànn bu fekkee ni dañ da ngay gis ko naan ñëpp a yem ñëpp yamuñu ñëpp yamuñu kon l'islam jullit warul neutre ci loo xam ne bu kilifteef amee da koy engagé waru ca neutre non non parce que boo ci neutre bu bu bu ku bon amee ku bon a bon am nga neutre bañ tànn ku bon a bon ci kaw ku bon yaa seetaan yaa seetaan bu ku baax amee ku bon am ku a bon am ku bon a bon a bon bon am yow tànn ku baax bañ tànn ku bon wala ñu tànn ku bon a bon wala ñu tànn ku bon a am nga ci part de responsabilité kon ñu xam ne l'islam dafa dafa addu ci ñuy gouverner l'islam diinin wa dawla إذا غلب على رؤسائنا اليوم في الحكومات والمصانع وفي الدور أن ينظروا كيف رأس الرسول وأصحابه ديننا الحنيف بكيفية وجب على رؤسائنا اليوم أن يقللوها في إدارتهم لسؤول الناس نخمن يونس صلى الله عليه وسلم dafa am lu doon jiite gouvernement la bu kenn jàpp ne yonent bi jàkka ja la yoroon di julli di sëlmal rek déedéet yonent bi gouvernement la yoroon amoon na ministre bu yore finance am na muy ministre des affaires étrangères amoon na ko ministre bu yore économie ministre bu yore euh, maanaam soldats yi ah justice amoon na ko yëpp ministère yëpp yonent bi saasam daf ko amoon yonent bi état la yore woon kon kooku mooy royukaay bi ci ñuy gouverner ci réewu jullit kon te lañ cay wane point ji souligner rek parce que waxtu yi jàngat xasa yaa ngi ni toog waxtu yi dafa xocc mais point ji point ji souligner rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ma amul ndey ku ma am ndey di am Sénégal nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àndoon na ci lama saraxat imraa maxzumiya وهي من قبيلة الشريفة فقام زيد بإذن من بعد الصحابة يطلب الشفاعة امام الرسول فاجابه الرسول غالبا اتشفع في عبد من حدود الله وانا بين اعينكم والله لو ان فاطمه بنت محمد شرقت لقطع محمد يدها فورا كما امر الله كما اي الله منتهى رسول الله يرى النبي صلى الله عليه وسلم امراه بين جنيه دفا ساكتون وبوك جنيه فتاتي مكه نداري يا زيد نعم زيد ابن محمد نعم محمد دكو تبنيون tabax yi daganoon na mooy jël nit adopté ko daganoon na ci lislam avant mais yàlla moo ko dindi ne ne woowe leen leen seen turi bàyyi bu leen leen maanaam woowale koo xam ne du bàyyam yàlla moo ko dindi ba jël soxna Zayd may ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour war ko ne loolu jeex na falammaa qadaa Zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa kon gis nañ ko Zayd moom la yabal ci yonent bi ne ko demal soxna si ñu bëgg a dagg loxoom soxna su tedd la a jéggal ndax ci fay bu rëy la ko ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa jàppoon léegi ba dugal ko ci kaso bi di waaj a dagg loxoom soxna su tedd la ci fay bu tedd la bokk ñu bëggoon rek yonent bi nga jéggal ko yonent bi dafa mer keroog ba tey ñi ko ñi koy waxe tey dañ naan dafa mer ba kanamam soppeeku moom sallallahu alayhi wa sallam ne ne ndax da ngeen ñaan intervention ci loo xam yàlla ko tëral te mën naa ni tund seen kanam faatooguma daan ne billaahi Fatimatu mii ngi sama doom bu sàccoon damay dagg loxo man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay dagg loxo léegi nag sama militant moo tëb tëb këpp kees gi kenn du ko def dara militant Matar Xaali moo këpp kees gi tëj leen ko ci kaso bi taalibe diw moo sàcc sëriñ ba def intervention kenn du ko laal waaye bu dee taalibe keneen ñu jël tëj ci kaso yooyu diw famille sàngam la la def moo def lu lu xorlu kenn du teg yoon ci kawam mais fan famille bu néew doole la bokk ñu teg yoon ci kawam loolu l'islam daf koy dàq te loolu moo tasaaroo ci suñu réew yi te loolu nañ xam ne jullit daf ko war a xeex mooy injustice warul am ci dëkk te l'islam dafay xeex injustice beneen ba des ñu ne Omar ibnul Xattaab moo nekkoon amirul muminin do maanaam doomam mooy yàlla ak benn jigéen ba mu ëmb Omar dafa tée te tër doomam tóor lu ko téeméer yar ñuy dóor te doomu Omar la te mooy xalifa te léegi nag man su ma nekkee kilifa rek sama doom bu defee lu mu war def wala sama jarbaat wala kenn kenn du ko def dara ki ànd ak man sax ci gëm-gëm wala doxalin su dara kenn du ko def dara kon loolu l'islam daf koo dàq te julli di war nañ koo xeex loolu jël te Omar moom doom bi dañ koo dóor ba ca la ñàkkee bakkanam ci njaaloo boobu mu defoon te moom mooy amirul mu'minin ñu gis ne maandu maandu dañoo war a fexe ba ñi ñuy tànn suñu réew fexe ba suñu réew ñu saxal fi maandu maandu mooy luñ la dénk nga xam ne bañ alal ji mbooloo ko moom dinaa dinaa révélé leen loo xam ne da ngay gis ñu bari di ko daganal te daganul gis ku ne ku ne la alalu état buñ dee politique buñ la geree lekkal si alalu réew mi la ay ab politicien di la ko wax wala keneen di la ko wax alal ji alalu réew mi ma joxee boo ko lekkee xaraam na sa a ngay lekk loolu nañ ko bàyyi xel ku la jox alal di la ger bu ko lekk parce que arrachi wal murtachi fi naar yonent bi nee ne ki ger ak kim ger yëpp sa a la njëm kon ki la ger ngir nga woteel ko wala ki la ger ngir nga paraneel ko wala mu ger la ngir nga def leneen boo lekkee ger nga yaa ko ko ger yéen ñëpp sa war kon da nañ ko lekk dagan na alalu réew mi bu kenn lekk alalu ger boo xam ne moom ko loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a kon ñu ni gis ne Omar ibn Abdul Aziz ba nga xamee ni jël na àtte ba pour maandu maandu benn gouverneur am dafa ñëw seet si ko di ko wax mbirum gouvernance bi ni ñu doon doxale ca dëkk ba mu ko yabal bañ waxtaanee waxtaan ba pare fekk guddi la mu taal lampe bi lampe bi état moo koy fay ci courant état lañ koy fayee mu taal lampe bi ñu waxtaan waxtaan ba waxtaan wi jeex waa ñu commencé ne ko Omar ne ko waa kër gi ana soxna yi ana njaboot bi Omar daal di jóg kon bu war daa dem fay lampe bi daal di ñëw toog daal di taal sonneel waa ji daal di waar wa omar ye mi ni waxtaan pare bu ni nga fay lamb bi di taal kon de mu ko ci en tant que manam chef d'état bu tollu yow omar ne ko waaw parce que waxu mbiru état lañ doon wax état bi lañuy liggéeyal maag yow booba am nañ droit niitu ci lumière état parce que mbiru état lañuy doxal waaye léegi nag pare nañ ci liggéey état léegi sama mbiru bopp ak sa mbiru bopp la ñuy wax amatuñu droit leerlu ci lamb ci état la ñuy pétrole oto état am boobu la ñuy doxee suñu soxla gasoil am waxuma la ñu yemale ko si gawaay di ko séddale dinaan diwa muy jël ay bon di maye yoo xam ne ko ko jël ala oto état di ci faj soxlaam jël bien état di ko maye te ñu te ñu jàpp ni moo fi gën a baax ba mënatul koñ bam koy defee ñëpp koy tagg duñu ci baax ko ku baax ci sa alal baax ci la nga moom kon tamit nañ am ku jaawalee sa poche ak poche état loolu du kon ñu gis ne naka lañ mel ñun léegi nga xam ne dañuy lekk alalu peuple bi maanaam ak a leen di diggante ñu am ak ñi ñàkk te ñu gis ne justice tam bare bare wala lu jafe-jafe te ñu yombal ko lool nga xam ne Abu Hanifa moom dañ ko faloon procureur général mais bañ ku ko nekk ngeen danger ku ci nekk tax dafa folleeku dafa bañ lu ko doon ba dañ ko tëj ba mu faat ci kaso moo ko gënal mu nekk procureur général kon te gis nañu problème mu àtte ni mu amee yi gis nañ ni crise moo ko may ndax mbokk yi ñu signalé ne waxtu jeex na waaye gis nañ ni crise yi nekk ci société bi te yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil ni saafara nga xam ne tasaaroo na gis nañ ne wax lu dul dëgg ni mu tasaaroo wax dëgg ni mu nee ci nit ñi xiyaanatul amaana wor am na lekk alal nit ñi ci lu dul yoon bari na غش في البيع والشراء دي دي دي, دي مانام دي نجار مانام خلط الجيب دي ردي موي دي نجار لو خامن دنگ دي نكو ورن دنگ دنگ موي موي لي واخ رشوة بينا waajur yi yore nañ seen njaboot ak njaboot yi yore seen waajur ak loolu yëpp bari na kon mu nekk ay crise yu bare bari yoo xam ne war nañ ca delluwaat suñu xel bu baax a baax a baax ñu daje nag ni war nañoo gën a soppaat sallallahu alayhi wa bu baax comme na Omar ibnu Xataab waxoon ni yonente bi sallallahu alayhi wa yaa ma gënal eh, sama lépp ba mu des sama sama jënd bopp ci yonente bi ne ko des na yow Omar nit ku gën mukk lu dem ko gënal léppam gënal ko boppam Omar seetaat boppam demaat ñëwaat ni ko yonent bi yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma sama njaboot gënal ma sama bopp yaa ma gënal lépp yow seen laa salam yonent bi doon na ko al aar yaa Omar al aar yaa Omar kon war nañu roy loolu baax a baax ci bëgg sallallahu alayhi wa sallam moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu daan wax ne ah maxab mahabbati al muxtaar sayyidina bul maganiya wal ahlina waaye walada maanaam bëgg yonent bi jël na place bu mu waroon a bëgg doom moo waroon a bëgg alal moo waroon a bëgg njaboot lépp bëgg yonent bi salaa sallam jël na place boobu moo fees dool la sama xol adxaltu nafsi wa jamia ahli fi jaybi afdali wala dul fadli moo tax sama njaboot ak sama lépp dugal naa ko ci jimay sallallahu alayhi wa sallam fu mu jëm bu ëllëgee kon moo tax mu naan salaatu sitta bi ma sitta taati yi battama tisaayi juróom-benn weer yi damay tagg yàlla euh, juróom-benn weer yi ma julli ci yonente bi salaam juróom yi ma tagg nabi fii asasin wa qaabili fawqal muna fii talfatin du moom ci njëkk a gàmmu la bokk nee na màggal naa guddi yonent bi saasam mille trois cent un mu andil ma lépp lu ma bëggoon mille trois cent trente neuf hijriya kon taasimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi istiyaadu minnati lil muxlisil muazzami màggal guddi yonent bi daal ci sunna nii ñu koy defee xaajale góor ña jigéen ñi ñu di jàng alxuraan ñu jàng xasida déglu waxtaan maanaam dal yor suñu kurus ñu jaamu yàlla sëñ Tuubaa nee na màggalu sunna wii de dañuy tàbbal àjjana te mooy dolli suñuy may ñeen a koy màggale aman yo hasdin mawlida xayral baraya ahmada faka shahidun shahida badran bi xayri waxam képp ku màggale guddi yonante bi salaatam màggalin sunna mel nga ni ku teewe badar ci loo xam ne defewuma ko bu kul man anfaqa fii mawlidihi min sharafi maalan bi xayri sharaqi walaw bi xadri dirami fa innahu kaman xabar yowma xunayni wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral waral mukaramin nee kep ko xam dépenser nga sa alal yo xam ni lew na la ci defar ñam wala nga jox ko terale ko ci magal bu di yonent bi nee mel nga ni ko fete te la xudee ni te muñ ko mel nga ni ko dee te tey badar mel nga ni ko dimbe ni ngeen ñu lepp sallallahu alayhi wasallam sallam kon mbokk yi fii lañ yam ak yeen ci waxtan yi di ñaan yalla mu defal ñu ci pàkk bu bare bare te nangul ñu lepp lu ci wax lepp lo xamé tam ci juumte la mata di doomu aadama la rek waaye defar rek lañ bëgg lu baax rek lañ bëgg yéene julli di jàmm yéene ko suñu bopp yéene ko ñëpp yàlla yàlla boole defal jàmm ñu ñaanal seen seex jëmb yàlla na fi yàgg te wér seen seex dunda faal yàlla na fi yàgg te wér ñëwatu maam Saram Fall yëpp yàlla na ñu ngi ñaan nag mbokk yi ñu ñaanal lañu seen seex dunda bu baax ndax moom royukaay la ñaanal ñëpp ñaanal ko moom bu baax ndax royukaay la doo xam ne ah ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Médina Fall doon ay Baay Fall doon ay Baay Fall di ko bëggee bu baax a baax di ñaan yàlla yàggal ko fi ndax royukaay la boo xam dañoo jege ñun xëy di ko gis di gis ni ñuy doxee di gis ni ñuy doxee ci yoon di gis ni ñuy doxee ci diine ni ñuy ko yàlla gën a guddal fanam yàlla na ko yàlla gën a wéral fu nit toog na ko ñaanal mu yàgg fi tëwee ñaanal ñun suñu kilifa diine yëpp mu yàgg fi tëwee wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant waa daayeen yëpp di leen ñaanal bis bi yàlla ko yàlla ci yéene yàlla ko yàlla def suñu kaw seen yoon assalaamu aleykum